boo xamante ne yàlla def na nga doon maire bu commune bu Dalangaabu tey boo ñu doon dikkaatal ci yan anam nga fekk ci commune bu Dalangaabu gannaaw bi population bi mankowee ànd daal di lay euh, fal nga jiite mairie bu Dalangaabu waaw Mame Moussa ñun ngi egsi si commune bi si élection yi ñu génn def population Dalangaabu fal ñu euh, ñu ñëw nag euh, war a liggéey bi nga xamoon fekkoon na am ñu ko commencé Euh, biñ ko commencé léegi nag euh, toor na toll si six mois sept mois euh, sunu borom dimbale nañu nag suturaaluñu ba am na fu ñu ko fekkoon jëlee ko fa am fu ñu ko yóbbu li diir bi gàtt gàtt. dem ba Diouf gannaaw yow bi nga jotee mairie bi daal di door say liggéey ci ban activité nga tàmbalee ci biir commune bu Dalla Ngabou sa liggéeyu njëkk. bi ñu egsee si commune bi ñu installé ñu en février. Euh, bobu bu ñu ñëwee fekk gu ñu woon commune bi am budget liggéey bi ñu ñëk def moy voter budget 2022 bu commune bu Dalangaabu sunu yalla def nak aussi du question da ngay xaar budget rek pour commencer liggéey amone ay urgence yu ñu fi fekk ay urgence yo xamné bari na won waron nañu jublu ci liggéey bi mais comme nak ñun ño ño ño opté won pour ñu dénk ñu commune bu Dalangaabu amna yo xamné duñu xaar dañuy def suñu pexey bop pour mën ko réaliser. sunu borom dimbale ñu at équipe bi euh, ñu yóbbu ndox si ay ay gox yu bari parce que fekkoon nañ école ñu ngi commencé école cinc ñu yóbbu fa ndox yóbbu école bu banaan ndox tiwo bi ñu yokk ko si dëkk bu ñuy wax dàgga pour permettre ñi nekk foofu ñu mën a xëcc ndox si foofu euh, si wàllu éducation tamit bi ñu ñëwee doté nañ euh, école élémentaire yi ak sem ay drapeau ay drapeau yóbbu nañ ko fa pour dimbali leen si comme doo yaakaar nañu soxla woon nañ ko ñu dimbali leen si ay drapeau dimbali jox chef de village aussi ay drapeau euh, yooyu ñoo ko defoon si yoo xam ne si suñuy moyen bopp lañ ko def foofu lañ commencé si weer wu njëkk bi nga xam ne dénk nañu commune bi euh, Mamadou Demba Diouf gannaaw bu nga jotee mairie bi ku ne xam ne liggéey yooyu dafay laaj benn partenariat ñan nga jokkalante dëgg-dëgg ngir ñu mën a liggéey bi ñu egsee si bopp commune bi am na ñu jot a commencé liggéey mun naa si citer lu mel ni FERA euh, fonds d'entretien routier bi ñu ñëwee rek ñoom lañ njëkk a seeti pour ñu dimbale ñu si liggéey bi euh, sunu borom def bi ñu demee si ñoom am nañ fa benn recrutement bu cinquante agents yoo xam ne ay ndaw lañ yoo xam ne si biir commune bi lañ dëkk ñu recruter leen ñuy toppatoo tali bi di bale. Euh, am si am si am si salaire bo xamné ñing ci ngi bu lol jallo tamit ci euh, xeyu ndaw yi euh, avec direction de l'emploi aussi recruter nañu 25 personnes yo xamné ay contrat lañ leen defal xamna ci mois bi lañ wara commencer kon emploi des jeunes sunu borom dimbale nañ amna na ñu lëkkaloo ba nga xamné bi ñu ñëwee dimbale nañ ci ba mun naa ne agents FERA ak 25 agents yo xamné direction de l'emploi mo leen mo leen recruter muy 75 jeunes yo xamné jël nañ leen fi ñuy liggéey si commune bu Dala Ngaabu at suñu liggéey ak FERA euh, dimbalee nañu ba ñu fekk si loo xam ne yàgg nañ ko di jooy muy yoon bu si mel ni yoonu diy sangu euh, diigaan daaruloo di sangu ak liggéey jàppale gu ñu jàppalante ak FERA tamit may nañu cinq kilomètres de yoo xam ne ñu ngi ko war a jëlee euh, diigaan yóbbu ko di sangu def nañ appel d'offre bi lancé nañ marché bi dépouillé nañ xam nañ entreprise bi nga xam ne gagné na ko d'ici un mois war na commencé travail. léegi nag ñu waxtaanee ci wàllum politique yéen li ngeen di jël lii di mairie bi yéen a ngi demee woon ci bannièru wàllu mais mm. gannaaw loolu léegi dégg nañ leen yéen a ngi ci mouvance présidentielle am nañ sax jàppoon ne da ngeen a demee woon liste bi rek wante yéen a ngi doon des di ànd ak njiitu réew mi président Macky Sall léegi loolu da koy firnde indi ñu si ay leeral. man bi ñuy dem élection. ñi ngi demee si euh, coalition Wallu Sénégal mais département Mbacké moom Demba Ngaabu kenn du ko laajte si Benno Bokk Yaakaar parce que suñu borom dafa def maa doon coordonné COJER commune bu Dala Ngaabu doon coordonné aussi le département parce que le coordonnateur départemental muy Serigne Mbacké fay bi ñu bokkee COJER dama waxoon comme yaa gënoon xam àll bi yaa gënoon maîtriser del coordonné commune rurale yi Euh, mu di leen coordonné ñuy def liggéey bu am solo si parti bi yàgg si lool nag depuis 2009 bi ñu ñëwee nag ba élection locale comme li xew fépp rek choix am peut-être ñu ñu jël le maire sortant ñun nag ñu ne ñun bi ñuy def politique euh, dañu amoon ambition ambition bi nag dara romb si dalangaabu jiite commune bu dalangaabu parce que comme ni ma koy waxee rek fi ñu waroon jaar yëpp jaar nañ fa. su doon làmb ñu ne def nañ mbapat kon sëgg grand combat moo si desoon bii nag dañu war a sëgg grand combat boobu nag porte yi ñu fëggoon bari na e, ñi bëggoon ñu demee seen list bari na mais borom loolu la namoon ñu dem si coalition Wallu senegal suñ borom may ñu si ndam lu rey bi ñu amee ndam li nag toogaat suñ coin continuer suñu liggéey bu ñu continuer liggéey nag ñu ñu woo bari na président Macky Sall wooluñu ñu wujji ko mu samtaat ñu ñu continuer liggéey bi nga xam ne ñoo ngi ko doon def si parti bi doon ko def si mu COJER ñu continuer àndaatal moom liggéey boobu ñu nangul ko ko nag nangul ko ko si tegal ko problème mu commune bu Dalangaabu tegal ko li nga xam ne soxla nañ ko si sunu commune te bëgg nañu accompagner si ñu nangul ñu ko ñu àndaatal ñoom continuer liggéey bi nga xam ne commencé woon nañ ko depuis 2009. Mamadou Demba Diouf dañu des ba léegi ci wàllum politique yi ñu génn. doonte sax coalition Benno Bokk Yaakaar daal dina ñàkk département bu euh, Mbacké ñàkk euh, Touba wante commune rurale yi nga xamante ne ñoom ñoo ne ci Mbacké dañ ko daal di euh, gagné ban jàngat kay def ci mbir moom waaw njàngat biñ si mën a def yaatu na mais comme ni ma koy faral di waxee rek man dama jàpp ne ñun ñun gañ dañoo gañe su ma nee ñun dañoo gañe nag treize communes yi ñoom ne moo composé département Mbacké commune rurale yi 13 suñu borom def dañ ko gagner ak ngañaay lu am doole mais li am Touba ak Mbacké nak euh, du les mais l'essentiel moy commune rurale euh, les président de la république euh, ko ci yi bëgg nañ ci dem ci nañ ci may ndam bi def nako def nañ parce que 14 communes am nañ ci 16000 voix et quelques 16000 voix et quelques. soo ñëwee commune Touba quatorze mille et quelque la noonu kon ñun li ñu waroon def nañ ko liggéey bi nag mun nañu dafa dese côté Touba te ku ne xam na ne Touba dafa rëy euh, foo xam ne dañuy wax six cent nangam bureau de vote la su euh, su suñu fa daanoo rek ñu daanu si département bi day yomb yomb mais ñu ngi continuer liggéey bi am nañ yaakaar ne yeneen élection yi ñëw euh, dinañ mun a gagner le département de Mbacké ginnaaw loolu mel mu mel ne amaloon ngeen am ndaje fii ci commune bu Dalanga bu yéen commune yi nga xamante ni yéen a gagné ci coalition Benno Bokk Yaakaar ci les élections ngir sumb ci ay waxtaan ngir seen ëllëgu ci wàllum politique amoon ci lu gaaw lan moo waraloon ndaje ak lan ngeen di sàkku ci njiitu réew mi ci mbir. ndaje bi lu ko waraloon dañ fi daje woon maire yi ak responsable yi nga xam ne ñu ngi si commune rurale yi. Eh, bi ñu génnee si élection yi danañ ne dañuy war a daje comme suñu borom dafa defoon dañ doon dem si élection ñu am si ndam lu rëy suñu dajee nag dinañ sant président euh, remercier ko nag fàttali ko suñu commune euh, parce que dañu yor ay commune ñu dénkuñu ko ñu am luñ diggante ak askan wi mu waxoon nañu am na loo xam ne dinañu ko defal si ay réalisation ñu koy soññ nag di ko fàttali réalisation yooyu comme li ñu waroon def na ko ñoom li leen war si suñu dëkk yi nañ ko def muy fu ndox war a am ñu dimbale ñu ndox dem fa fu courant war a am ñu dolli ko foo xam ne war nañ fa tabax marché wala école wala dara ñu jàppale ñu ñu def ay réalisation yoo xam ne population bi dañ koy gis comme dafa bëgg ñu jàppale ñu jàpp si ba loolu am ñoom tamit daf ñoo war a jàppale si suñu liggéey ñun mairie ñu teg loo xam ne population bi da koy gis bu boobu jàllee nag ñu tegaat beneen boo xam ne ay élection duutuñ ko nangu nag bu élection jotee ñun ñooy gagné te bu ñu joxee post de responsabilité di ñu zappe boobu tamit ñu koy fàttali ne ko ñoo ngi jub si ay élection muy au conseiller ñu doon sàkku tamit ñett poste yi nga xam ne dañ koy dañ koy élire ñu jël ko si quatorze commune rurales yi loolu moo waraloon suñu jataayu keroog bi def nañ ko am nañ yaakaar ne dina aboutir dara ñoo ngi toog di déglu. Euh, Mamadou Demba Diouf maire bu commune bu Dalangabo euh, xam naa suñu question bu mujj rek ci suñu émission à nous moo di yan perspective nga ñuy mën a xamal lu jëm ci liggéey yi nga xamante ne sumb ngeen ko. mu jëm ci lii di commune bu Dalangaabu ci seen mandat bu njëkk. waaw ñun li ñuy xaar si commune bu Dalangaabu euh, xam nañ ko xam nañ yaakaar bi population bi am si ñun xam nañ fañ jëm ak liñ bëgg si euh, mandat bi li ñu si li ñu si mébét ak liñ si bëgg a def bari na euh, commencement bi nag am nañ si yaakaar bu baax si ñi ñuy dimbale ak ñu ñuy jàppale ak partenaire Euh, si diir bu gàtt rek li ñu fi def bari na nit ñi gis nañ ko mais am naa yaakaar bu baax li des moo ëpp doole fopp euh, te fii ak at mi jeex dangeen ngeen fi gis ay réalisation yoo xam ne dinañ ko def si commune bu Dalangaabu am nañ si yaakaar ñoo ngi si yoon bi te ñu teggi suba ak ngoon pour àggale euh, li ñu namm fii ak yaakaar population bi am si ñun loolu moom ñi ngi si ñi ngi siy liggéey te commencé nañoo gis ay bunt te am nañ yaakaar ne loolu yëpp dina sotti incha allah. jëf monsieur le maire xam naa li des ci suñu waxtu bëreetul bu fekkente ne am na leen loo ci yokk rek jox la nga jaaree fa tàggatoo. xanaa di la jaajëfal di la